Je madame la présidente du conseil du dialogue social représentant au président de l'Assemblée nationale au conseil des collectivités territoriales au conseil économique social et environnemental du nuyu partenaires, partenaires, yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu jàppale ci liggéey bi ñu jàppale ci moyens yi di nuyu membre staffu ministère bi secrétaire général directeur conseil technique yi ñu ngi nuyu inspecteur d'académie ñu ngi nuyu inspecteur du ci département nous ñu ngi nuyu tamit euh, suñu partenaire syndicaliste yi nga xam ne ñu ngi fii ñu ngi nuyu euh, le partenaire école yi fi nekk maa ngi ci nuyu xalif Seydi Ababakar, di sama rakk bu ma yàgg fànn yëpp ci liggéeyu scientifique ak liggéeyu jàngale ak liggéeyu syndicat di nuyu tamit euh, inspecteur d'académie bu Dakar bi nga xam ne moom moo ñu dalal may nuyu ñu fi nekk ñëpp euh, ndaje bi tey euh, dañ koy tenir fii ci Dakar parce que lu bees la ndax bi ma jëlee service yàggul semaine bi la te at bu jot dañ doon def séminaire diko def ci fan yu gën a yaatu dafay atelier partenaire yépp ñëw ñu wax dafay synthèse ensuite euh, ñu ñëw ñu liggéey bi gëna tax dal ren nag defe naa euh, ni mu ni école bi ubité école bi dafa jege balaa maa jël digganteem ba ma jëlé service yagul te tamit dañoo am ay problème d'organisation ñu tenir ko fii ci Dakar mais defe naa format bi bi ñu jàppoon doon ko def moom format bi changé wuñ ko même format bi la ñuy def euh, bërëb bi rek lañu ñu changé mais leneen changé wuñ ci format bi donc loolu ma ci gërëm tamit partenaires yi nga xam ne ñoom ñoom la ñuy tenir kii bi ñu nangu ko parce que defe naa tamit euh, liggéey Dakar fii tamit ak liggéey sali condition yu benn la bu wesso tay li lii dem ni ma fatali sànq ne séminaire bi daje na président démb mu joxé instruction que premier ministre ak ministre gouvernement bi nañu tenir ben conseil interministériel préparer l'entrée bi parce que rentrée des classes bi dafa di lu nga xamné président dafa bëgg mu jaar ci nu waré té gouvernement bi defe na ñom paré nañu tamit ak lépp lu nga xamné war nañ ci. war nañu taxaw mu euh, ci pour mu baax dinañ ci taxaw conseil interministériel bi suba la euh, jàpp nañ ne lii tey ñi daje fii ñoom ñooy diriger école yi système éducatif bi ñoom ñoo koy diriger inspecteurs yeeg ñi nekk ci Dakar ñi nekk ci kaw ak ñi nekk ci gën a euh, sori ñu ngi fi dinañu réfléchir xool problème yi nga xam ne école moom la jànkaar jànkaar moom la jàkkaar lool jànkoonteel euh, xol li nga xam ne loolu la ñu def am nañu objectif yi parce que objectif yi nee luy continuer le parce que sama xarit Mamadou Talla bi nga xam mo fi jógee mak mom yag nañu liggéey système éducatif bi parce que enseignement supérieur sous secteur le secteur éducation yag nañu liggéey fi ci Sénégal représenté nañu Sénégal ci bërëb yu bëri mais problème yi bëri mak mom lañ ko don gérer continuité le parce que président moom mooy joxe yoon wi mooy wax ne fii leen jëm maag moom yëpp ci gis-gisu président la ñuy taxaw euh, dolli si ñu yàgg liggéey di xarit kon man li ma fi li ma fi fekk dama koy continuer ndax euh, wax naa ne système bi fi am suñu système éducatif système bu baax la bu euh, innovant la mooy bu nga xam ne lu mu jànkaarloo rek wane na ne am na am nañuy bànqaas yi nga xam ne buñ ci taxawee rek dinañ ko jéem a régler problème bi bu fekkee ne dañoo taxaw déglu waxtaan déglu ñëpp wane naa ne man ci tànk yooyu laa nekk ci lay continuer sama bureau ubbeeku na sama cabinet ubbeeku na ñu may liggéey loolu fu ma dem si sama cabinet dina am ku nga xam dina ñu gën a bëri ci cabinet bi ci secteur bi ma ñëw foofu ñu ma fa fekk laa leen laa fay def ñoom ñu taxaw xam ñoo gën a xam problème yi man may ñu may conseillé parce que lay conseillé day fekk moo la gën a xam li ngay def fi nga nekk